mais pois bi nga yor nii par rapport ak ba nga yoroon dafa mel ni bokkatul de fi mu nekk changé nga. mais xam nga ay xale nañ ñun dañuy liggéey rek ànd ak suñuy coach ñun dañuy liggéey ndax ku xam Reug Reug rek si liggéey nga ko xamee. moom tamit liggéey na si combat bi ndax instant bi ñi ngi naan guy gi moom woon moo ñëwaat te man loolu dama koy namu si moom. waaw na entraîné maa ngi koy ñaanal jàmm suñu grand frère la yéen ñu ko lu jàmm. di koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm ba bis ba borom may ñu ndam. gis nañ la léegi ah ci entraînement lu nekk yaa ngi ci quoi maanaam def flexion def li nga xam mooy appui avant gis nañu léegi léegi nga jël loxo yi mu mel ni loxo yi macha allah neex na combat bi guy gi bu la woowee ci xeex guy gi woowal Reug Reug ci xeex lan la lay tontu moom. waaw guy gi bu ma woowee si xeex moom dina ma dina ma neex trop. waaw comme lu may wax rek waaw guy gi ba ma ooyee si xeex dina ma neex trop ndax lu ma mën tam xeex moom ma ko gënal waaw ndax combat bi wax nañ li ñuy wax jaay nañ combat bi def nañ lépp li si war sama diggante ak yow nañ ko def rek bégal amateurs yi bégal Sénégal yi ndax ndam li génnul gaal gi. waaw on est guy gi sama frère la ah moom moo moo moo ma may xaat moo tey jii sama ceeb bu tooyee à cause de moom la man tamit moom ceebam bu tooyee à cause de man la ndax ñun ñooy mayante xaalis doonu ñu ay noon dërëm bi génnul gaa gi. en tout cas daal li ma koy wax na entraîné ñun ñu ngi waaj ak suñuy mbokk moom na ànd ak ay mbokkam. bay ba sa bis ba rek yàlla suñu borom bala ñu. sérieusement guy gi nga gis nii ñi ma nga ak moom raag ak moom. bien sûr ah, door nañu wax lépp ngi si. waaw lépp a ngi si comme ni muy communiqué bu ko dëggalee rek man gëm naa ni làmb ji dina neex. waaw dinañ xeex dinañ bëri incha allah. wax nga ko guy ga woon nga gisaat guy gi nee na sempi la bëgg yëkkati jox asamaan asamaan bañ mu delloo la caaroy géej. Mm. non guy gi guy gi moom mu dëgg yàlla mënumaa sempi nag. Ah, ah ah ah xanaa gisoo guy gi mi. ah mënumaa sempi nag ndax. wax ko ko. guy gi mënoo ma sempi ndax damaa jaar équipe nationale jaar fu bëri si sport am xel mën a bëre macha allah li nekk fii newu si bopp guy gi waaw boo ma amoon quatre-vingts kilos guy gi mënu maa yenu ndax xam-xam baa ngi fii ndax nit ki boo koy yenu moom moo war a def loo xam ne tey jii maanaam yow kii du la yenu fii ba suba nag du la technique technique la bu nga xam ne da ngay man bu ma bëggee yanu sawaay bu ko neexul du ma ko yanu du ko yanu waaw yow góor gu góor gu la neexul mënu la mënu ma yanu mante ne ndax damaa am technique bi sama loxo du aju si kaw mukk si biir lay ne <laughs> waaw moo tax làmb la daal mais daal ñun pare nañ mm-hmm. waaw di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam fii am na din géej géejawaay am na din mhm. fii am na suuf bu diis suuf bi nee naa leen boo ci doxantoo sax da ngay chargé waxuma laa nga ci entraîné alors yéen ñaar yaakaar naa ni fële suufu suufu arène nationale boobu ak ni mu diisee dafa mel ni naroo leen ci am problème parce que maa ngi wax coach mu naa ah, ma non yow fekkewu ñu din ya quoi waaw waaw ñun moom dañuy liggéey ñun ay xale nañ dañuy liggéey ndax boo xoolee mu amul combat ñàkkam combat bi damay liggéey ndax lambay sama métier waaw lambay sama métier dañuy liggéey ñun ñu ngi nii tout près géej moom tamit mu ngi tout près géej gi. din yi am nga din am na. <laughs> din yi moom tamit tout près din mais est ce ñun li ñuy entraîné moom dina ko entraîné kenn ku nekk kenn ku nekk yaa xam li ngay entraîné. man li may entraîné sama bopp laa sama bopp laax man li may entraîné. est ce moom mu ngi koy entraîné moom tam est ce que moom lu muy entraîné man maa ngi koy entraîné bokkuñu entraînement kaay. kon yow entraînement guy gi daanaka sa yoon newu ci quoi. non sama yoon nekku si ndax. sa bopp nga concentré sama bopp rek laa concentré wu. ndax euh, mooy li may wax rek. nit ki ku ñu tufli rek nga tooy ku ñu tufli rek nga tooy mais te ñun dañoo xaw a weexu dung bu ñu waxee ne gars ñun mënuñoo communiquer mais nañ ñu ko jégal xam ne ñun moom ay xale nañ waaw dañuy doog a door bu demee si kanam incha allah xam naa lépp dina changer te mu ngi changer sax waaw mais daal na xam ne ni am na komba man dañ jàppale ne am naa komba waaw waa waa Sénégal entertainment dañoo fay xaalis bu bëri. kon na ñëw ñu ji wane jum jom fulla ak fayda. ba ëllëg bu ñu génnee si combat bi promoteur yi mën ñoo xëccoo. waaw. Ah, mais ku ku bëree ak euh, Elton bëree ak euh, euh, Gris ñooñu nga xam ne ay ay super lourd lañu. tey nga war a am guy gi mii nga gis nii. est-ce que yam nañu niveau ñooñu. non yamuñu yamuñu le ndax ñëlee ko gën a diis. koo xam ne soixante cent soixante sept. gën a dij gën a diis bokkul nag. mais nag diis diis. dafa bokk si si làmb. dix daa bokk si làmb ndax ma tam mu bokk si làmb. tey jii boo xoolee ñi mat daan ak ak làmb làmb ñoo gën a diis si làmb ji. bu ma juumulee. bu fekkee sama xel naxu ma nag. ñoo gën a diis si làmb ji te xoolal ni ma bëreeg ñoom. sentir nga ñoom est-ce que ñoom ëpp doole. ndax bëri na ma ñoom dal na dal na ñoom. waaw ah, loolu la quoi man moom ay diis ak ay ay wàññi man aw ma problème boobu. ndax jaar naa équipe nationale jaar naa fu ne. si sport waaw. mais coach nag euh, dafa mel ni des fois sax euh, gars yi dañ naan mais coach mi dafa soxor ndax affaire yi mu lay teg kii kii tam ndax nit la tamit nag. dégg naa des fois mu naan enchaînement enchaînement gars yi di ko yow yaa ngi ñuy enchaîné loo ta doo waaw mais ah. mais dafa bëgg ndam rek ndam rek la bëgg moo tax mu ñuy teg ay coono. waaw ndam rek nañ bëgg moo tax lu ñu tegoo rek dañ koy dékk waaw ndax ñun moom ku ñu xam dañuy sport. Mm-hmm. Mm-hmm. kon kon kon yim lay teg nii doo jekk ba ci àgg nga xaw koo jéppi tuuti. non non non moom mooy dem fa si yàgg sax na ma wàññil entraînement yi. waaw ndax man moom damay entraîné. Mhm. waaw damay ne lu si war yëpp dama koy def. Mhm. Mhm. alors euh, euh, tey ji ñi ngi ci dernier réglage ah. athlète bu tollee fii. combat bi di gën a jege. lan lay yëg ci yaram yaramam dafa mel ni fi mu ne nii yàkkamti nga bés bi waaw boo koo gis athlète boo xam ne tey day entraîné daj ay coono combat am des maximum neuf jours. day yàkkamtee bëre yaram bi day xisan. day xisan. lu muy gën a lu gën a jege yaram bi di gën a xisan. di gën a bëgg gaaw bis bi ñëw. mais pression bi di yéeg. non man pression du yéeg si man. mais man moom géew bu ne bëri naa ba amuma ma pression pour bëreeg n'importe kii di am si moom pression non non. ku dul guy gi sax mënuma am si moom pression ndax fi ma jaar la. noobul laa jaar ñoo xam ne duñ yàq làmb duñ def daray làmb duñ saltel daray làmb sama logique bi kon mënumaa jaaxal waaw lépp fii lay ne mais guy gi nee na combat bi da ko jaral lu nekk parce que dafa am fu mu ko war a yóbbu dafa am lu mu rate woon bëgg ko rattrapé te ci yow loo ko bëgg a jaare yow loo koy wax Malick guy gi bëggee combat bi mille fois bëgg naa ko trois mille fois maa ko gën a bëgg combat bi téeméeri junni yoon. Mm. moom mii mag bu fekkee moom moo bëgg combat bi sa alhamdulilah man mii xale bëgg nekk sama yoon. léegi looy wax guy gi ci loolu moom moom moom dalaa war a xajal nga jàll wala da ñëw siif ndongo siif mbaa nga sarax ko. waaw man li may wax guy gi mooy maanaam tey jii moom na entraîné rek na ma mën a dékku. waaw man ay comme nekk fii naan la danga may sarax xaw ma man ma ñëw nangu sama doole. Ah. no loolu man man gëw ma loolu. guy gi man na ma mën a dékku rek. boo dee guy gi daw na ma mën a dékku. dafa mel ni yow yaa nar def combat bi lu fa am yaa ko bëgg a def. si kàttanu suñu borom. lu fay am géew ba chaque jour maa ngi koy wax sama combat yëpp dama koy wax man nit ki mën nañu am combat. lu ne nga koy wax takk rajo yi di def lu ne mais bis ba géew ba man maay diriger. combat bi luñ ciy xaral ci yow parce que dafa am ñu nga xam ne dañu nii combat yu mag yëpp da a décevoir mhm. mais combat bi la ñu am yaakaar ni mhm. am yàqin ni dinañu gis bëre dinañu gis ambiance dinañu gis xeex non combat bi moom di lépp dina si am ndax comme li may wax rek dinaan olof Ndiaye di wax naan ku la jiitu si néeg bu lënd moo lay wax fi nga tooge mhm. peut maa maa maa njëkk a euh, maa njëkk maa ko njëkk a bëri arène nationale xam naa guuba lu fay ne xam naa géew ba lu fay est moom xam na li nekk si géew ba <laughs> moom bonne question googu loolu bonne question <laughs> eh guy gi ndax xam nga li nekk ci géewu arène nationale boobu loolu la la sa waay laaj tontul ci loolu mais géew boobu dafa mel ni man dégg naa suuf si daa xóot maa la ko wax fii poids lourd yu bëri ni ngi leen woon géew bi ne leen waaye di la ko ndax géew ba dafa diis am suuf léegi nag yow bu fekkee yow xam nga ay gazon bëri si ay gazon wala ñu lal ay suuf benn camion suuf. loolu pour nga glisser si pour nga daan koo xam ne yaa xaman da se yombu mais fële amul loolu la. fee boo sampoo. moo boo sampoo. Eh. amul ay tarxiis. amul tarxiis amul tarxiis day sampu suuf rek la. boo man bi may bi may daw bi may dugg si maag euh, Gris 2 maa ngi ko bi may daw bay dugg si si géew bi dama kontaan ndax xamul tax ma kontaan damaa xam ne fii ku mënta bëre doo si génn. kon maanaam suufu arène nationale bi hmm. day avantage kat wala attaquant. mu ngi noonu nag noonu la demee. Ah. voilà noonu la demee <laughs> ndax ñun dañoo yàgg bëri see suuf yàgg contact yàgg dem dîner gi yëg loolu defuñu dara ndax ñun ñu ngi liggéey daal ànd ak suñuy mbokk. Hmm. Hmm. mu nekk mbaa bu nga xam ni ban importance la am ci carrière Reug waaw rëy na trop nag ndax boo xoolee guy gi moom comme lu may faral di wax rek champion la bëri nag ñoo xam ne man bëri gu ma ak ñoom mu tourné may ma sans kon dama koy sant si loolu di ko gërëm. combat bi boo ko daanee da lay permettre nga dugg si VIP kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm. waaw. mais CNG nee nañu ñetti biteel te yow li nga daan yor ci biteel saa waay am nga problème na xaw ma noo ko lijjantee. <laughs> waaw am naa problème moom mais dinañ ko lijjanti incha allah ñu topp règlement yi CNG ndax ñooñu suñuy kilifa xam nga loolu expliqué ndax ëllëg damay bañ man damay bañ tey ji ñu ne def nga ñëw CNG di ko weddi non man du ma def loolu. te bëggoo dagg sa xaalis. man kenn du dagg sama xaalis. làmb ji daa yàgg. yaa ngi boo xoolee man liñ ma dagg si Elton matul sa ay 300 mille teg la ndax boobu neen dama xaw taar si cumbukaay je ne sais mais man moom waa CNG lu ñu wax damay respecté seen i kàddu damay respecté seen seeni dogal. ndax ñooñu suñuy njiit. loo xam ne ñun du ñu tooñ rek incha allah dinañ si jé def ay jéego incha allah si kàttanu suñu borom. lan ngay gi mi ngi nii jàkkaarloo. waa guy gi dama koy ñaanal jàmm. ah di ko ñaanal famille bi yëpp jàmm di ko ñaanal ay supporteurs am tamit ñu ñëw si jàmm mhm. ah yéenewuma ko dara lu bon wa dëgg yàlla ndax borom baax la ban signature ba léegi dépassé wu ma ko moom dépassé wu ma. Mhm. jàmm rek laa koy ñaanal ba bis ba yàlla suñu borom may ñu ndam. ah waaye bu ñu tëjee barrière ay jàmm ak. jàmm jeex fa am loolu du fa am. moom jàmm amatu fa jàmm amatu fa foofu moom mbàccum gerte eh. waaw looy woote. maa ngi oo maanaam caare géej yëpp laay woo bu ma limee damay juum. mais ana mbëru caaro yi grand yeeg yow gis ma ganaayi pourtant nag fan yëpp ñu ngi fii ñëw nag si contact bi mm. waaw xëy na tey dañoo xaw a jàpp mais ñëpp ñu ngi loon ñëw si contact bi ñëw Ousmane Diop ñëpp ñu ngi loon ñëw mm. waaw di nuyu waa caaro géej yëpp bu ma limee daal dama ak fukki penc ak ñaar yi ah maa ngi oo samay supporter fukki penc ak ñaar yi ñëpp